jërëjëf Serigne Saliou. jërëjëfaat Serigne Saliou. jërëjëfaat Serigne Saliou. waaw ñu ngi tàmbalee suñuy kàddu du, siyaare Serigne Mountakha xalifa général kulli murit ko ñaan mu yàgg fi lool te waaw bu ngeen suñu bi lu ko waral tey mooy ñoom dañ di ay taalibe Serigne Béthio jëmbalu ci moom yaakaar ko àdduna ak alaaxira tànn ko ci biir Serigne sépp nag mu doy sëkk ñu ak ñu ak Serigne joxoon ñu soxna Aida Saliou ñu bëgg a dee ba gisatu leen ba na ngeen and ak mom ñu ndigal ci ñun ñu woy ci ndigal lool yii and ak soxna Aida soxna da and ak ñun ci dañu yar ci luñu señ sëñ doon yar moy fonk Serigne Touba fonk magalam gi mu wote màggalu Serigne Touba fonk xasaay bi Serigne Touba yi fonk gàmm gi nga xamanteni buñ ko xamé ci rew mi Serigne Touba waye fonk beusam boobu bii nga xamni ni bu nu mënee yegg ba ci mën tuddo ay murid mën yegg ci Serigne salu fonk lo ñu ndigal yooyu yi dajeem boobee ak Serigne salu moko waral mu xew 17 avril mu fonk lo ñu bés boobu yam ñu ci ay teggin ak talu bi ànd ak ñun ci yermande ak ci fonk lo ñu kilifa ñuy dox ci loolu nak ba ci bir rew mi ay wax di jib ay menace de mort jeme ci sunu serigne moom soxna Aida ay appel au lynchage yoo xam ni nit ña koy def nëbbatuñu làqatuñu def seeni vidéo di woote ngir ñu dal ci kaw boobee ba tey kenn déggul ndax soxna su tedd si digal gi mu ñu digal nañu ne leen patt bu leen tontu na ngeen fonk kilifa na ngeen nekk ci yar ak teggin nek leen ci li ngeen ne mooy fonk xassay ni ak waajal bisal abil bi di bésum serigne Béthio bi waaye ñu dem nak ba yefi ëpp doole a lu ëpp tuuru ndax menaces yaa ngi bëgg bari te nak fi ñu toll ñu ngi yek ay velléités offensive yo xamni c'est pour mettre à exécution leur menace mo waral ñu dajé suñu dajé bi ñu dajé ku xol ni ñu dajé ak ni ñu melo nga xam lu bu ñu wajj daje bu ñu daje dans l'urgence la ndax information yu ñu am jugee ci réew ma ci dal gi ñu bëgg dal ci kaw soxna Aida te loolu ba mu ba mu amee ba léegi dégguñu benn yoon état du Sénégal addu ci wala jël ci benn disposition mooy de ci état de droit la ne réew mi day day réew moo xam ni danoo maye ku ci nekk nga gëm li nga gëm te doxal li nga gëm li feeg wàcculoo yoon te ñun de wàccuñu yoon bi sant sëriñ Saal la ñuy def nañu ko sëñ Béthio jàngale soxna Aida defu fi lu weesu li sëñ Béthio daan def mooy di sant sëriñ Saal di togg ay berde di ko jox jaamu yàlla yi jublu ci bégal leen am ay woykatam ñuy wéy sëriñ Saal di wéy sëriñ Béthio mu ànd ak taalibe yi di feccal sëriñ Saal na ko sëriñ Béthio daan def màggalu sëriñ Tuubaa gii fu ne li lis na lim ci jëf xasaayu bi sëriñ Tuubaa yi sunu jotaay yi ñuy daje gisuñu kenn kenn benn dajaloo gën ñoo fonk xasaayu bi lañ ciy jàng xeetu ñàngin bi ak mokkal bi alxuraan bi lañ ciy wàcce ci ay kaam yi génn kuréel gisuñu ko joo xam ne mën nañ laa ñee ci wàllu woowu kon ñu ne ci loolu waaye nag bu ñu demee ba naa yi toll fii mu toll ah trop c'est trop trop ñoo ngi leen xamal nag dootuñu ko nangu ñun ñii di ay taalibeem ne fii ci Bordeaux te xaj di xajaat bi dajewuñu ndax ni ni daje bi demee tax waaye ëpp nañ ñi fuuf te noonu yi ñu baree fii noonu yi la ñu baree ci ci réew yi ne ci ci bitim réew yépp waaye ëppee ko fuuf Sénégal ndax ku ne xam ne ni réew moom yi kenn ëpp fa ay taalibe Sëñ Béthio te ñamu boole soxna Aida kenn xamul nañu toll kon nag ñu bëgg ñu xam ni trop c'est trop mbir mi mu ngi bëgg ëpp doole te duñu ko nangu menaces yi na jeex menaces yi na jeex te ñi ko jiite xam nañ leen fàllu fàll mbawoor sa bañ sañ bayto ñépp xam nañ ko mm-hmm. vidéo yaa ngi ci internet bi yàgg ngaa def ay vidéo di dal ci kaw sëñ Bàcco di ko yekk lu mel ni xame kon boo boo boo jógee tey da nga dal ci soxna Aida du doon lu mu bett Moustapha Diakhaté mi nga xam ni moo njëkk def vidéo di woote ngeen ñu ngeen ñu ngeen ñu ngeen ñu rey soxna appel au meurtre yow la nga nekkee Thiès ñëpp xam nañu man li nga fa nekkee loolu ba nay judd gannaaw jàkki dén boo njaay Thiès a xam nañ ko yow doo référence kilifa gën a seen ginnaaw nag ngemb leen di leen waxloo ak di leen agirloo dem nañ ba xam kumu te mom day tané wu leen ndax teddé jabaru jamm na fi nekké waaw waaw té nak li ñuy wax lepp dañu am preuve wallahi walaay suñu yara suñu teggin tax ba bo ba léegi waxuñu fekk si leen sen terrain bu mu tax ngeen bëgg a ni da ngeen ñoo mom bu yi dakul preuve yi ñu am dañ ko bind ci internet bi ba nu xam lu du ngeen du ngeen ay nitul dara wu leen dara yi yéen serigne touba xamoo leen ko lijjantiwoo len ko fonko len ko ku xooloon seen def ci magal xeeb ku xooloon lu ngeen demee xasaari sëriñ tubaa yi xeeb len kon yëf yi na dakk ñoo ngi interpellé le président de la république ah ndax da non na ci rew mo xamni ne dafa am ay loi ak ay règlement suñu constitution daf ñoo garantir la liberté de culte ñun ñoo tànn suñu sëriñ ànd ak moom mu joxoon ñu soxna ay dañu fas yéene ànd ak moom ndigal lool yi yéen de xam ngeen ne ñun ku ànd ak sëñ Béthio doo ragal réew mii ànd feeg sëñ Béthio ragal du ko def ñoo ànd ak sëñ Béthio assumé ko mu joxoon ñu soxna ay def ko muy son héritier spirituel ñu ànd ak moom loolu kenn mënuñu cee delloo ginnaaw kon nag ñu ngi interpeller le président de la république lii xew ci réew mi du lu war a xew ci état de droit mënuñu ne ci état de droit ay nit dug def ay vidéo di def ay menace de mort jëmee ko ci kilifa ngoo xam ne ay millions nit ñoo ko gëm ci réew mi ak ci bitim réew te état du Sénégal bu réagir ñoo ngi leen xamal ne dootuñu ko nangu nag. Mhm. wax ji day mën a dakk lu ko may lu mu leen jaral jaral nañu ko. Mhm. ah nay fi leer ñun jàmm ak salaam lañ woote ci lañ ne boobu ba tey. ñun ne ku ñu xam-xam ni suñu jotaay togg ay benn joxeel ak way di fecc loolu la la ñuy xasee jàmm ak salaam bëggee sant sëriñ Saliou waaye nag ñu ne ba ñuy menacé de mort menacé sunu sunu sëriñ de mort ci réew mi lu mot ay ayu bés te kenn réagirul à ah, trop c'est trop dootuñu ko nangu te nag ñun ñiy féetee bitim réew ñun ñëpp dinañu wàcc Sénégal du jënd bi biir ñëw. te ñenn Sénégal yi ñu ngay waajal seen bopp mhm. waaw waaw ñun soxna Aida jaral nañu lu ne. jaral nañu lu ne. lu ko nit ñi xam kon ñu ngi interpeller l' état du Sénégal notamment le président de la république waaye fii na dakk trop c'est trop waaw kàddu yi foofu lañ koy yamale di ñaanaat suñu xalifa général Serigne Mountakha mu yàgg fi lool te wér. amiin di faat